asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football TV nuyu na leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo di leen remercier si message d' après ma def si Alioune Badara Mané donc ma gis ne. Euh, bokk na si genre vidéo yi xam ne dama koy def ñëpp d' accord ne kii ñëpp a nangu daanaka commentaire yi bu nekkee dix wala vingt wala quarante wala cinquante amul kenn ku wax ne négatif ñëpp ma kande waaye kii nañ ko woo si équipe yëpp daanaka man moo jëlee sama sondage yi xamante ne yu may suivre ñëpp d' nañ ne euh, donc euh, booy bi ko war a convoqué ma concernant li ma li ma si war ak Malick Daaf def naa ko après dinaa si def leneen xëy na donc falaa mën a yem ak yéen mais xam leen ne Alioune Badara mom franchement gis naa ne talent bu leen impressionné la loolu moom gis naa seen i commentaire et que vous avez raison euh, def loolu di wax ne euh, voilà liggéey bi euh, ñoo ko bokk xam donc yéen a may jàppale man damay ñëw rek jox visibilité donc euh, am na ñu nekk si ginnaaw ñu xam ne lay jàppale di leen jox ay info yi donc ñooñu laay remercier bu baax baax a baax donc Alioune Badara Mané xam naa ne bientôt rek dinañu am am moom benn interview à distance comme ça yéen Sénégalais ngeen gën ko xam donc restez connecté abonné leen like pour ñi nga xamante ne defooguñu ko restez connecté sur Senfootball TV képp ku xamante ne joueur nga dinañ ko andi sur Senfootball TV démb dugal naa leen beneen booy attaquant bu nekk Betis Séville Euh, benn boy jaaw Assane jaaw boy bu tàng comme boy bi tamit dugal naa ko mais damay continuer insister parce que actuellement échéance bi nekk sama kanam mooy coupe du monde U20 instant yi looloo nekk sama kanam donc lépp lu mën a dooleel équipe U20 lépp lu ñu mën a may ndam man instant yi incha allah ci dinaa si nekk en tout cas boy bi mën na dribble am na explosivité ailier gauche lay joué 19 ans la am gaaw na et que bu ñu demee ba ne la adjoint bu Brésil bu mag bi kooku dem na di xool boy bi ça veut dire que c'est intéressant bu demee ba Brésil africain dem Brésil bëgg leen jaay affaire de dribble loolu moom mënul na nekk te xanaa kañ tey jii bu ma gisoon benn Sénégalais nekk championnat Brésil nekk défenseur wala nekk benn milieu défensif si laay gën a si laay naan ah lii lii du garaaw ci man quoi mais boo nekkee un dribbleur maanaam fi fi mu baax buñ ne dribble rek sa xel day booy bi Alioune Badara Mané mi day jàpp foofu teggi ay coup franc ba bii muy dugal quoi 19 buts booy bi saa bii mu dugal dafa bari 19 am finition bu jàkkaarloo gardien tegg ko nànk dugal mën na taxaw fii xaañ à 30 mètres ay reprise mais euh, voilà il est assez complet encore c' est un jeune bu xamante ne fu ñu woowee jour yi nekk fii championnat Sénégal xëy na leen war a may visibilité xëy na leen war a gën a dooleel booy yi nekk ay Brésil nekkoon fii ci réew mi gars yi xam ko bu baax fii Tëngéej ñi xam ko Ziguinchor bu baax mu juddoo fii ci réew mi bëgg Sénégal bëgg ñëw teewal dëkkam et que euh, je pense ay ay Malick Daaf xam nañ la la booy parce que aussi tamit championnat Brésil bu ne la am na benn sénégalais bu fa nekk euh, voilà sa xel dina am sénégalais nekk Brésil loolu doy na waar de xam nga donc kii moom gis naa ne yéen samay internet yéen ñëpp à 100 pour jot naa si ay appel jot naa ay message amul lu ma si jotee pour pour ak yeneen vidéo yu xam ne dama koy def di wax leneen gars yi ñëw commentaire at na ma Mouhamed booy boobu taxaw si de Aliou Badara maanaam mii mën na fubal de mais foo jëlee kii kii moom taxaw si de man man mii defoon vidéo bi sax dama mujjee jaaxal jaaxal pour dire que ne comme que man yéen laa fi nekkal souvent dama leen koy wax si ay vidéo yu bëri man loo leen bëgg man bëgg na loo leen bëgg man bëgg na donc bii mooy deuxième vidéo bi may def ci moom dinaa defaat beneen troisième vidéo

am na réaction yi ma am am na dribbling il faut que nga mën dara quoi donc il faut que y a de la qualité xam nga donc euh, en terme d' accélération maanaam gaaw na mën na dribbler mën na tirer mën na dugal bi donc lu des gars yi des kii li des kan mooy ñu may ko sens am sénégalais na muyee la mayoo bëgg na woon sénégalais mu man nañ ko may sens parce que franchement il est fabuleux sa boy la sa boy la franchement man mii bi ma gisee vidéo yi tak je me suis dit waaw booy il est il est donc pour ñi nga xamante ne dañ ma doon laaj euh, son compte Instagram xam naa après dinaa leen naa ko tàggee fenn wala yooyu comme ça euh, ngeen dem ngeen abonné boo tapé Alun Dibala Mané di Dibala Mane, euh, Instagram pour ñi xamante ne ko suivre donc boy bi fa la toll lan lay et tout donc ça peut être intéressant pour vous ngeen que souvent c'est difficile boo nekkee euh, yenn Vous ñu am vidéo c'est compliqué il faut que ñu wax ci et que sénégalais dem ba xam la donc lay donc ñi xam nañ ko bëgg suivre son nom euh, sur Insta en tout cas man vous ci sama qualité non c' est intéressant et te gis naa ne validé ngeen te man loolu leen validé rek man validé naa donc euh, ba tey rek leen di bàyyi ci commentaire euh, lan ngeen xalaat euh, concernant Alioune Badara Mané ñi ko defagul nañ ñëw commentaire gën a partage vidéo yi gars yi vidéo boobu noonu partage partage nañ ko bu baax a baax Facebook surtout si ay groupe WhatsApp football seen groupe WhatsApp seen groupe WhatsApp yi xamante ne voilà dañ fay waxtaan football mën ngeen ko partagé foofu wala Facebook wala seen i seen story maanaam seen seen seen i statut booy bi liñ ko gën a xam gën a baax ci moom pour équipe nationale du Sénégal U20 mbokk yi jaay jëfal naa leen wax leen ba beneen sur seen football TV. Yeah, uh, Killer. Bye. Whoa. This is Gas to the Net tape. we gën be métti everyday xamoo lu ko waral suba teel I'm dem amatoo ragal xam nga kersa ñaan sàcc wala di yor waan dépense su kër gi you, ba moytul du ñu dugg waañ xale yi dëkk jooy xool daal lekk to mu doy.